organiser ñu nit ay symposium bu ñu defee ay colonie ndax jamono ko laaj ñu nit nañu organiser ay colonie l'essentiel moy nañu fexé ba xam ni ñoom seeni bos ñañ tay préparer lañ leen di doye bokku lek ñun suñu bos lañ leen di doye wolof nak mo wax ni bu ñëpp yeme cër am ñu geddi seen boss waaw mu melni nak nag baat bi sunu borom wax ci alquran ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم yàlla nee na sag bi sàggiku kanam loolu jara xam yàllay laaj de mooy laaj jullit yi ni leen sag bi sàggiku kanam yéene wala man am na koo xam ni sag bi mu lay sagale li mu gis ci yow ba di la ko sagale fekk mu nga fa sag ba du fa jóg te bis bu ko gisatul rek sag ba dem kooku nag du ci moom yawa mu mel ni nag tey ku xool te am seetlu te di dëgg moo di jàkk yi tey la gën bari daara yi tey la gën bari tariqa yi tey la gën bari daayira yi tey la gën bare waaye jullit yu néew ya nga daan naw démb jullit yi tey yee leen ëpp waaye ñi nga ci naw barewul nañ waxante dëgg jullitu démb ya lu ñuy néew néew néew naw nga leen ci lépp waaye julliti tey yi tey la ñu gën a bari waaye ñu nga ci naw barewul mu mel ni léegi li ñu tuddee le monde islamique al alamul islami mel na ni ci bëtu ay wujjëm ak bëti ay noonam bu dee am na benn considération bu ñuy am ci ñoom ñaara a tax ñu am ci ñoom considération moy pétrole ak dollar mais est-ce que ñoom rek ñoo am pétrole ak dollar ñoom rek amuñu ko ñi am pétrole am dollar bare na kon nag bu fikkee ne seen fonkeel yëpp ñu ngi leen ko tegal ci pétrole ak dollar pétrole ak dollar bu nga xam ni ci seen ñàkk fayda dem nañu ba mu teguwaat ci seen loxo noon ak seen loxo wujj bu ñu juree ci diine ñu dëgg ci pétrole ak dollar ba rey bu ñu fàggoo ñu dëgg ci pétrole ak dollar ba yàq muy laaj nag jullit yooyu tey ni leen yéenay kan أتستبدلون الأدنى بالذي هو خير نح بترول بي أك دولار بي إسك ويتنا لير جلن يالا سيدون ويتم لوجيس بو أنتو دفا فك مو أم أي نيتم lislaam ci njalbeenam li taxoon mu am chance mooy dafa amoon kilifa lislaam li tax mu ñàkk chance ci jamono mooy amatul kilifa njiit la am du benn donc vous les présidents et les présidentes faut ngeen di commencer l'islam bu d'afin dafa amoon kilifa Pas. Ah. mais l'islam mu léegi amatul kilifa njiit la am bis bu ne nga dem màkk bis bu ne nga dem màkk am ñu la parce que ñooy njiit mais bu kilifa doyee doo leen mën a def kilifa parce que doyuñu la et pourtant la nekk màkka tey moo dàq téeméeri yoon la nekkoon màkka ba yonent bi di dund et pourtant ñu jëkk ñi nawoon nga leen mais ñu mujj ñi nawoo leen parce que kilifa bi ñu amoon muy muhammad rasulun min anfusihim yonent bu gane siwul lu jar a dégg la parce que bari na yonent bu am problème ci fuñ ko yónni parce que fuñ ko yónni gan la fa mais Muhammad fiñ ko yónni du fa gan fa la juddoo lépp lu penc ma di ormale nit wala ñu di ko fonke nit fekk na ko mu def ko ci boppam te booba yàlla ñëwagul yàlla nag soog a ñëw def ko li mu ko def jox ko téere yatlu suxufan mutahara xamuloo nit ñu ko dégg barewul yatlu suxufan mutahara ñu ko dégg barewul parce que bu ak tawraat xarifu حرفوا الكلمة عن مواضيع بدي إنجيل نون تورات بلا بلد المجيجي إنجيل بلا بلد نح لويا لبنون صبي ننكو دفت لنام يونانتي بنيو نجلي ميور كن صبي وجدارا متصحف مطار nuko yàlla wacce won ba léegi nonu la mel dara changé wul fiha kutubun qayyima yàlla neena yi bax ya am solo yep mako ko dajal def ci tere ba mais bu yamone fofu do am solo yonenti bi matna limu don mat na ko ci péncam laata lislaam di ñëw bi lislaam ñëwee yàlla wóolu ko yónni ko jox ko téere bu nga xam ni téere ya ko jiitu woon kenn mën a tucaa basé parce que la ca yàlla defoon changé nañ ko moom bi mu yor dara sikku ci fa la yàlla mën a yem mais ba ca des nag mooy est-ce que am na ay nitam waaw am nitam yooyu mooy wax ji heureusement am na ay nitam nit ñu nga xam ni yasaaduuna bi soxbatihi parce que gis nga mbir buñ ko waxee bul xool côté tagg ndax boo xoolee côté tagg li nga war a dégg doo ko dégg xoolal côté njàng yasaaduuna bi soxbatihi ñi daan ànd ak yonent bi dañoo amoon fierté ca ànd gi ñuy ànd ak moom fierté bi lan la du jëmmi ànd gi mi wóor gi mu leen wóor ni keneen gën gënatu leen ci àdduna te ki ñuy ànd la ko def ci ñoom looloo def fierté bi kon ñoo am fierté ndax ànd gi ñuy ànd ak yonente ba jëmi ànd gi mais defar gi mu leen defar ba kenn gënatu leen moo tax ñoo am fierté bi bi ci des mooy yar xaw na bi kalimati yi fi ñu yéeg ba yegg fa ci cër yépp ci kàddu yonent bi lañu soppi échelle kàddu gu ñëw ñu def ko beneen marche kàddu gu ñëw ñu def ko beneen marche ba échelle bi yëgg fu tax fu ñu bëggatee yéeg danañu jaar ci kaddu yonent bi ba yegg fa wa yataaddabuuna min nadri ilayhi ku yegg ci yar la ba waxuma la bu la tegee bët waaye bu la tegatul bëtit dootoo ñemee yeree diku ndax moom kooku mënuloo ko fay wa yasuuduuna taxta dilli ko xam ni bu la ñépp nii yaay sunu jaam ndax aada boo ñëwee ci keppaaram di sangu ñépp ndaxuk mbaax i fa la mën a yem kon yonent bi li ko war def na ko waaye ñi mu àndali def nañu seen jom mu mel ni itam bokk na ci li leen dimbale pour ñu àgg fi ñu àgg parce que nit bu ubbee làmb boo foogul woon ni dana ko ub war nga koo laaj foo koo jaar lu am solo la ku ub làmb joo foogul woon ni dana ko ub war nañu laa laaj foo jaar lu am solo la mooy waxinu Jacques Maritain boobule

mooy bu jëkk bi mooy foyewuñu lislaam parce wuruñu di jël lislaam di ko neexale nit ñi am li gën bon ci àdduna mooy li nga gën a la ngay wër nit ñi di leen ko neexale boobu ñàkk xam li nga am la waa yonent bi jëluñu lislaam di ko neexale kenn ñoom ñoo fexe dëggaat seen bopp ci lislaam ba ame personnalité bu ku ñu bokkaloon ci deret mujj nga leen ñee nit nag bu ngeen bokkee deret bokk lu ne mu daan defandoog yow lu ne dem bu mujj gi mu ñee la am na fu ñu la jaarale fu ñu ko jaaralewul وإن تفق الأنامنا وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال la mutanab bi waxoon nee na parfum bi ñoo wax musc nee na ci deretu kéwél la jóge waaye nit a ko xereñe ba génne ca parfum waaye la des ca deret ja dañ ko tuuri mu ni kon nak fañu jaar deret de bu mu nek parfum ba am na ñu fay jaar nit ba nit ke raw ñamu bokkan looy tax nak ñom badu habba ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum bad bobu mo am solo parce que doom doom ku ko ëmb ëmb ñàkk pexe kenn du la yedd ah doom ku ko ëmb ëmb ñakk pexe kenn du la yedd xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërhan waaye pas-pas kenn du ko ëmb ëmb ñàkk pexe moo tax xababa ilaykum al imaana wa zayyanahu fi qulubikum xam nga sopp dara gëm dara te complexé woo ku la ni ca nga bokk nga bég ku la ni bokkoo ca nga am lu la naqati dañ koy jaarale nit mu mel ni lislaam ànd nag mbaax yi mu àndal mais ñi yonent bi préparé ci biir lislaam ñoo tax ñi wuy si wuy si waaye jëluñu lislaam di wër di ko neexale nit ñi la ikraha fi diin pas-pas bu ñuy ëmb ëmbu ëmb ñàkk pexe amul baaxul laa ikraha fi ddin qad tabayyana rusdu min alxay faman yakfur bittagut wa yumin billah faqad istamsaka bilurwati lwusqa waaw kon fexe nañu ba ci melokaan ak ci taxawaay ak ci fayda nit ñi envier leen sax ndax li ñu am kon kooku ñoom seen taxawaaye leen ko may ñaareel bi mooy booba kenn ku ne defe nga nekk ca sa wet sa jaam la boo amee alal def jaam ci amul alal boo amee judd def ki amul judd sa jaam waaw boo amee barke fekk ku amul barki nga def ko sa jaam bobu lolo xew bi l'islam ñewé nak ñom ñu fexe ba yonent bi jàngal leen ni leen yàlla sunu borom ñépp yam ci mom diw jur laak diw ñak la jur ñoo ci yem yàlla ki mu xam moy ki gëna a tedd ki gën a tedd nag waxuñu yonent di baayam wala sëriñ di di baayam ki gëna tedd mooy ki gën nit ñi ay jikko gën leen defin kooku gën tedd ñoom nag ñu fexe ba ñi ñu daan exploité yépp ci turu barke di leen exploité ci turu alal di leen exploité ci turu deret ñu wan leen ni leen ñépp a yem yàlla donc ñu gëm ko ñu gëm ko te it ba ñu ca duggee dem nañu ba ñi leen daan def jaam wëlbati ko di daw pour dabat dotaat ci ñoom rawatina ku mel ni bilaal ku xam bilaal li mu daj ak li ñu ko won ak li ñu ko sonal au nom de العبد الحبشي ايه واي جامبو نيول بي جامبو نيول بي ني جيل دي كارت رك جامبو نيول بي ني جيل دي دور رك جامبو نيول بي ني جيل دي ديري رك واي نيكي باس باس با مونكوي امب تا نياك فايده تاخول بو نيو دوري با دافا ني دانا واتي موني احد احد ba raw keroog boobu Sufyaan ñëwee di tuub si te ñëw ak mu tàmm ak ya mu takk te ñëw toog ci wetu Bilaal Bilaal la ngi ñuul ci wetam te bu jëkkoon sañu ko mu toog ci wetam Bilaal di ko xool ak leeraay geeg ree ji ba mujj mu jàpp ci yi mu takk ni ko yii xewul fii ndax defoon na ni yooyu xew jaay yu ñëw di impressionné waaw ay ay mbubb yópp yooyu mbubb yu ñu ñaw yooyu di tiitaru